ma ñëwoon dugg si waaye sama xel dalul dara dama te ñàkk ñëw rek waaye kon du ma ñëw suma ma ñëwee damay daw du ma li ma war a dugg lépp damay daw. situation bi situation na lool metti garaaw na lool metti nit ñi tiit nañu ba pare te mënuñoo toog ci kër yi affaire bi garaaw na daal garaaw na. situation marché Castor moom. marché Castor na débordé na na trop. bari nit. nit ñi tooguñu jikkiwuñu ñu ngi ci marché bi di wanda na ne ñàkk pexe rek ma fi indi su ma sësan beneen marché dutuma fi dugg. tiit boobu la ñu tiit suñu njaboot yi kenn génnatu ci kenn dematu ci fenn tiit boobu la ñuy tiit waaw mooy li may mooy li may yàgg di wax sama gars yi nee naa leen daal nañ jël suñu ay matukaay jël matukaay bi ndax dara raw ko lu dul lii wax nañu ba sonn yooxu nañu ba sonn léegi lii la am. ak coronavirus bi xam nga marché bi ku ko xool nii nga ne fii nii amul corona lii bon xel nanguwul nii xam na lii amul marché bi c'est ce qu'on vit au quotidien marchand yi nangu nañ tali bi situation bi bon c'est plus que alarmant su fekkoon sax euh, amul woon corona lii di yoon mais instant yi ak corona bi lii xam nga ni lii munul munul nag te munul wëy nous sommes en danger. comme que mi ngi génne castor daal man xamatuma ci castor dara castor tëj ko lañ war a def sëñ bi tëj ko waaw ni ñu toog jàpp ci yàlla du moo gën leen tëj ko daal jàpp ci suñu borom moo gën leen affaire bi garaaw na trop. au moins pour ñu tëj ko quelque temps pour jéem a assainir population bi xool. riverains nous ñu au moins ñu euh, salubrité am euh, cadre de vie c'est normal quoi pour vivre normalement mais on n'est pas en train de vivre normalement nous. c'est ce qu'on vit tous les jours et depuis des années et des années et des années yow yaa gisal sa bopp ni ko comme par exemple nit ñi nangu nañ tali bi oto jaaratu fi et consort commerçant fii la fekkee baax ci marché Castor waaw bu ñu yemoon ci cadre marché bi rek ñu mun a wax ci biir marché bi mais dañu ñëw ba ci biir këru jaamur yi ci kaw tali bi ñun affaire bi déborde nañu carrément waaw mënatuñ ci mënatuñ ci dara nax lu dul lu dul demande autorité bi ñu jógal seen bopp ñëw jàppale ñu ci lii ñun commune jëppal Castor Derklé ci marché Castor. ragal propagation maladie bi. oui moom lañ moom la ñuy ragal amul ragal sax parce que gis nañ ko ci biir commune bi ba pare. waaw lu ñu doon yàgg di alerte depuis un mois tey ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg tëj bi gisuñu ko bale bi fi amoon bërki démb le maire taxaw préfet taxaw ñëpp taxaw guddi gi 23 heures gars yi ñëw nañu le mi ñëpp ñëw nañu mais bañu démé ñom bañu joxé gannaaw ci lañu def ben balai balai lañu def balai le lendemain marché bi dafa melni ké kenn fi ñëw ça veut dire que mesure buñu wara jël ki jël ki wara jël responsabilité commune bi euh, jërul man je pense que jërul carrément responsabilité suñu yaakar yëpp ñu ngi ko tek ci autorité yi quoi et puis pas les autorités mais les autorités étatiques ñooñu la lañuy gëm yaakar parce qu'on a tout fait avec notre mère, ça n'a pas marché sincèrement nous ñoonu nous ñaan nous, ñu pour un peu en sécurité